yow man yow ma kay yaay diriger yaay dicter say loi yaa si nuyoon <laughs> léegi looy nuyoo di am mbégte kontaante saa su ne di nekk ak yéen ci plateau euh, Sen TV matinal 7 h lay doon Mame Mbaye Ndiaye Yacine Seck euh, puisque euh, beneen maire bi maire Guédiawaye moom dafa absenté moom buy absenté du ñu yëgal mm-hmm. kon tey maa remplacé Mame Mbaye place Mame Mbaye laa jël moom jël place mu jël monsieur le maire bu Guédiawaye waaw mu ngoog ñu leen di jaajëfal bu baax si teeru bi 7h30 jàpp 8h la équipe bu baax bi ñu fas yéene taxawati joxati leen dose bi ngi nit ci wàllum information monsieur le maire bu goxu bu Lamb ànd seex madame la conseillère <laughs> Yacine Seck <laughs> ñu lay nuyu. maa ngi lay fay naka yow gi. sonn. nu ka am ne doore. bu doyee bu sonn. naan ndox naan ndox. du waa digaluma ko benn yoon nag. bul naan mais tey ku la wàccul sa koor ngay wut. xalaatuma ko sax nag kaamee ci man. xalaatuma ko sax. mukk naka naka waa dëkk ba. ñoo nga fa ñu ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm. yow ban maire nga bëgg nekk sax. parce que fu mu nekk da def nii. waaw maa ngi versé mais comme conseillère là pour le pas encore décidé. ñun nag dañoo décidé ba noppi. waaye ca bis waaw monsieur le maire bu Guédiawaye wax na fu mu bokk monsieur le maire bu Tëngéej wax na fu mu bokk. très bien ça man maire bu OS la la la soxla. Mm-hmm. maanaam sama parti RCD. Mm-hmm. bu euh, euh, euh, madame Fall Ibrahima Bari. Mm-hmm. ñoo ñooy dem jël maire bu ouest ah. te waa ouest yëpp sama mbokki lébu yi man la ñu àndal yàlla na yàlla mottali loolu biti la fanaan soobee yàlla waaw yow nag sa bopp comme tey da ngay tatane non oh, bàyyi rek ma doon conseiller ba si kanam ak doylu foofu nga ceeb nii nii nii ndigal laay woy te si ndigal li mooy naa ci yam pour le moment nga nga yem ci noonu kon baax na ñu nuyu bu baax ajaratu ay da ndionb mille milliards yaag koo mbapat fii la ñu waroon def photom bi loolu lañ wax waa 1000 milliards vraiment bàyyi leen ko delloo leen ko xaalisam jox leen ko xaalisam surtout que da ko soxla ci approche yi feet yi nii. xam nga feet yi léegi ñëw. Euh, ajaratu euh, waree wàdd Sarr ah. borom ndikku coro Sarr maana coro Sarr ba coro Sarr alkaali Massamba borom jam jam ya ca kawoon. la lan kooku maam Abdoulaye Wade. Euh, Lalaye Safal Lalaye Safal Kofem. dimanche am nañ benn formation bi mag civisme ak citoyenneté. Mhm. Euh, c'est Frédéric fondation Frédéric Ebert la ñuy wax je pense dimanche la ñuy waaw ñu ko ndaw yi yëpp. Mhm. xam nga civisme citoyenneté jamono ji dafa mel ni ku manqué ci réew mi. Mhm. Euh, kon nag euh, moom loolu la woote. lan lay defal action sociale yu non la politique autrement dëgg yàlla dëgg yàlla. moom politique autrement def defantewul. xasantewul saagantewul. mu ngi def politique am. loolu politique maa moo tax maire HLM stratégie ko ko joxul waa HLM buñ buñ ba mu rëcc leen <laughs> dootu ñu ko defal yàlla baax na ah ajaratu ngoone ndooy ah mhm, fukki ci yeex ñaari mhm. ah, ak euh, Tons Dadoña monsieur le maire de la ville de Rufisque. ñu ngi leen di nuyu directeur de campagne Bamba Fall. ñu ngi anniversaire bi dégg naa wàcc na Medina démb. ah loolu su ki wax de. dégg naa wàcc na ko de waaw comme ñun invité wu ñu nag da lay man de fii laa ko yëgee ni nga ko yéegee jëm nañ ko woo ba sonn nag. jot waaw jëm nañ koo jotuñu ko invité wu ñu mais amul benn problème ñun fu ñu invité wu na mën ñu foo dem di toj kaas ñu ñuy fayloo ñu daal def ñu lu dul ñaanal ko rek amul benn problème le reste moom. yàlla may liggéey waaw mu ngoog ak sa pape bi nekk fële. papa Assane Gueye. sama papa nuyu naa la ziar naa la. nuyu nga ko ziar nga ko yàlla na la yàlla defal teraanga. waaw saltige bu tëngeej moom euh, papam dafa génn àdduna ni ki démb. déedéet waaw dafa génn àdduna ni ki démb euh, tey ji lañ koy jébal boromam Euh, Maodo donc euh, te xam naa naa fa dem. waaw moom papa mooy saltige bu Tëngéej bi bàyyam dafa génn àdduna kon. ñu koy jaale nag euh, waa Tëngéej yëpp nag ak suñu mbokki lébu yëpp. waaw commencé ko sama kàddu man mii man lébu bu mag bi ñoom jaraaf yi sundu ak ñoom ñëpp. ñu leen koy jaale saltige bu Tëngéej mu ngoog bàyyam mu génn àdduna kon nag yaa si dañoo xëy dëxëñ. ak la war ko jukki faram fàcce ko ñu ko doo reex yéen a kaay groupe des médias la tribune ah. Mhm. Euh, mu dikk ci euh, faatu bakken gu sakkan gi ñu ne. dëggal ma ci réew mi ko da nga koy téye. Mhm. Malick Gadiaga. moom nee ko mu moytu. ñëwagul. Malick moytul cuuraay yi donte ci koor la ñu ne. est-ce que du xëdd est-ce que du xëdd bee xam nañ ñoo ko jiit ci néeg bu lëndëm ne bañ moytu da ngay la <laughs> la tribune euh, Touba nag yëkkati na kàddoom ah, xam nga jamono ji dañu agité peine de mort dañu koy andi wala duñu ko andiwaat en tout cas mhm. euh, Touba la mu wax euh, ba ci boppam mhm. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké la mu xam le moo di charia mhm. la mu digle dafa leer ku rey nanu la rey peine capitale la wax moom foofu la foofu la génn yéen kay groupe la ko tënk nee na amul laamiso amul wiiri wiiri ba yegg ndaar wax ji leer na. Mhm. diiney lislaam si la ñu si la ñu tënk. Mhm. kon nag ku rey nañu la rey. Mhm. en tout cas peine capitale lay sàkk moom xalif bi. yéen a kaay groupe des médias foofu la euh, génne. l'observateur feelu ko sa wet ga la loi du talion. moom noonu la ko tuddee mu mel ni kon xalif général kullu murid moom mu ngay fàttali kon nag euh, la di la lislaam la lislaam digle. Euh, ci ku faat te tay ko. bu fekkee da nga faat nit si sa teyu bakket da tay ko. lislaam leen rek la ci wax. nañu la rey yow boo sàccee. Mhm. nañ dagg say nañ dagg sa loxo. Mhm. kon euh, sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké loolu lay digle. Mhm. ci charia ci charia. ci faatu bakkan gi nga xam ne sakkan na loolu jamono ji ak euh, ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Mbengue nga xam ne moom moo bindoon ci page Facebook am. ne jigéen ñi euh, lépp luy jàmbate góor ñi di ko jànkonte jigéen ñoo leen ko teg kon dañu wàll dañu war wàññi li limug jigéen ñi. nañ leen wàññi ce qui veut dire que leen rey. loolu nag moom après doon na jéggalu naan euh, tayu ko loolu daf ko doon def da doon café tout ça mm-hmm. yenn ci ay njabootam nag ñoom ñi ngay xam ne ne kon euh, daf mu ngi doon suivre benn traitement yu nga xam ne nii euh, si wàllu bopp la kon nag mm-hmm. moom dafa mel ni njaga ko mm-hmm. dafa am bopp bi dafa xaw a déréglé loolu la ay ay waajuram li nga xam ñooy ne si ay mbokkam xamle nee na nag jéggalu na moom sax demoon na ba ne moom dafay xaru mari day taay waaw moom la yéen a kaay l'observateur wax. tax kuy def internet da nga xam looy def internet. internet internet voilà internet kon. bien bon looy bind na nga ko xam looy fay dugal ko xam ndax lépp fay des. ay ah, eh, inconvénients am bari na lool nag. Mm-hmm. Euh, madame Fall Almadina 2 suñu conférence bi le cinq la. bu ñun waa RTD. waa RTD xam ne dañu am conférence mag nañ ko nag. damay ñëw ñu ñëpp ñëw. laas quotidien moom mu dikk ci kàddu yi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ba tey nee na peine de mort na ñu ko andiwaat. Mhm. peine de mort pour ñi ko xamul moo bu fekkee da nga rey nga tey ko. Mhm. ñu rey la ñu la loolu la charia wax loolu la diine l'islam wax moom euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kullu murid. Mhm. nee faatu bakken gi ñu nemmeeku ci réew mi jamono ji solution boobu rek la am. ku la faat. moom loolu la xam ne. vox moom it ci kàddu bi xalif bi la dikka ah kàddu yi xalif bi nee na euh, euh, bu fekkee nit xam na ne boo rey ñu rey la kon doo rey. dëgg la dëkk dóore nee nañu. fayoo koy tas kon nag boo reyee. Mhm. nañu la rey. Mhm. bu ñëpp xamee na boo reyee dañ lay rey. Mhm. kon rey day jeex. dëgg la vox populi foofu la génne euh, ci kàddu yi ki nga xam ne rek moom mooy xalif général kullu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké critique critique ne la ne xalif bi critiqué na xalif bi xutba na. la mu xutba du lenn lu dul. peine de mort. Mhm. peine capitale ku faat ñu faat la. Mhm. en tout cas xale bi wiiri wiiriwul jaarul daal. Mhm. ci digg bala jaar. te waxam du ay waxi caaxaan. ndigal jëfe. ndigal jëfe réew mi quotidien du magum xamoon naa ko. magum waxoon naa ko la réew mi quotidien foofu la euh, génne bu fekkee da rey. te xam ne dañ la war a rey kon dootoo doo rey mhm. kon nag ku rey nañ la rey mhm. si Taïf mhm. loolu moom la xalif bi wax ci euh, réew mi quotidien pen capitale loolu la bëgg ñu andiwaat ko te lim gi sax nee nañu mu ngay gën di yokk ah. ndax boo xefee boo demee fa nga xam ne moom mooy sa Tamba euh, benn malien la ñu fekk ñu rey ko ca àll ba euh, kon nag fee nga xam ne moom mooy sa sa sa Ziguinchor ñu naan na benn xale bu nga xam ne moom dañ ko soxbal mu mu faatu kon nag li xalif bi wax neex te weddi mhm. ñu am ni position bi ñu joxe en tout cas xalif bi joxe na xalaatam mhm. moom xalif général ku lu murit mooy li ma wax sànq rek référendum gi de boo méttu dana tax man mambay euh, ay affaire u euh, peine de mort yi mhm. dañ ci war a réfléchir bu baax a baax a baax Mmh, jar na xalaat. parce que rétablir ko quand bu ñuy fàttaleeku bi Sénégal amee indépendance. tam moom moo fi nekkoon ñaar rek lañu fi jot lañ ko jot ñaar yoon lañ ko jot a appliqué. Mmh. xam nga bi ñu jëlee keroog euh, waa ONG Jamra Mamatar mu ngi koy xamle. Mmh. ñaar lañ ko jot a appliqué mais 2004 je pense lañ ko lañ ko abrogé. ñu dindi ko. donc bu demee ba dindi ko c'est parce que dañ jàppoon ne Sénégal réewum teraanga la jàmm ji am na. waaye bi ko dindee ba léegi aussi. ca la gën a yokk force est de fitna dafa gën a am. ray yi mi ngi gën di moo tax ñenn ñi jàpp ne peut-être man nañ ko indiwaat mhm. pour mën leen a dissuader pour au moins ñoom ñu am lu ñuy ragal. Mhm. mais est-ce que jamono ji nit am na lu muy ragal. le quotidien foofu la génne réquisitoire bu euh, Serigne Bass Abdou Khadre euh, si kàddu bi moo moom mooy porte-parole kon xalif euh, général kullu murid mhm. moom nee na nañu indiwaat peine de mort. ndax mën a ndax ñi nga xam ne ñooy def kati ñaawte fi man a ragal. am lu ñuy tiit su ko defee nañ faatu bakken gi mën a wàññeeku. enquête. gën dikkaat ci kàddu yi euh, xalif général kullu murid nee na le discours fort di xalif kàddu gi diis na kàddu gi dëgër na mhm. waaye li diiney lislaam rek wax moom la ñu andiwaat mhm. ndax nee nañu faatu bakken gi sàkkan na si diiru bu gàtt ñu faat fi ay ay soxna surtout mhm. jéem leen a sàkku ñenn ñi sàkku leen ba noppi daan leen faat te loolu kan daan ñu ko am loolu film yi rek lañ ko gis kon nag réewum Sénégal réewum teraanga bu ñu demee bay gis jëf ju mel nii. Mhm. donc xale bi bu waxee ne nañu andiwaat peine de mort. war nañ ko ko teg mhm. war nañ ko xoolaat. war ko xoolaat bu baax war nañ ko xoolaat bu baax. Mhm. Sud Quotidien. Sud Quotidien euh, dikk ci meurtre viol xam nga mooy li doon wax sànq. dafa mel dañu ko tegle. lim gi mu ngay gën di màgg. Sénégal nag jamono ji dafa mel dafa wut aw yoon. nga dakkal nga dakkal lu ni mel. maanaam fu mu mën a jaar ba dakkal lu ni mel. en tout cas xale bi war na ko yoon wi xale général kulu murit nee na ko loolu pour mu dakk il faut nga di peine de mort ku rey ñu rey la bu fekkee yaa ko tey mm-hmm. waaye nag abbé Alphonse waa jàngu bi nee na ñu bu ñu fàtte ne peine de mort amoon na Sénégal def jéego mm-hmm. daal di koy dindi donc loolu benn pas la ngir jëm ci kanam mm-hmm. kon pourquoi ñuy delluwaat delluwaat ci lu nga xam ne ni ay dellu ginnaaw lay nekk nañ jël yeneen i mesure waaye yeneen mesures yooyu AJS association de juristes euh, association des juristes du Sénégal ñoom nee ñu ndax jarati na jël ay mesures bu fekkee nag Sénégal bu dee jël mesure rek ñooy ay champion mhm. ñaata mesure la ñu fi jël suñu problème lan la appliqué dëgg la dañoo am problème appliqué pour ñu appliqué si boppam moo ñu tër mhm. loolu nag Jacques Boyer war na cee wax moo tax ñu ngi wax waxu penn waaye gëm naa ne xoolal ñu naan wii bés bu ñu demee pour voter soixante dix pour cent bi noonu la ñuy def ma seen man loolu moo ma dañu clément dañu bëri dañu bëri lu ñuy maslaa yàlla baax na ji bu def fee def fee bëri yàllaay baal ji moom moo fi bëri nëpp nëppal da ngay nekk si kër njombe am fa nga gis eh, eh, eh, inceste am fa mhm. wala kenn ku sàkku ab ab jarbaatam wala lu mu doon mhm. ñu nëpp nëppal ko si kër gi mhm. te xamal nañ ñu ngi loor xale bi ñu sàkku te looloo bëri ci réew mi nag looloo sabab nag réeroo am waa jàngu mi nee nañ nañ jël ay mesures te bañ a wax peine de mort xalif bi nee na nañ andi peine de mort waa AGS nee nañu bu dee jël mesure moom jaratu ko. Mhm. ndax jël ay mesures yu ñu amul benn sens. 24 ne lan moom. moom euh, de nee na moom peine de mort waaye église bi nag mhm. mu xaw a daal tuuti. Mhm. que peine de mort diis na. kon nag nañu xoolaat daal abbé Alphonse daal moom moo amee. kaddu gu mujj gi bu fekkee nag woote ñu référendum parce que bu dee référendum dañ lañ woote askan wi ñoo amee seen kàddu gu mujj mais nag président Macky Sall euh, mu ngay xam ne kon dana woote conseil présidentiel weeru août. ngir ñu waxtaane insécurité bi nga xam ne moo am ci réew mi ndaxte nag bu ñu umpale ne insécurité am na fi de. weeru août sori na de lu ne mën na ci. waaw diggante bi nit ñaa ngi dee rek. waaw lu ne xaj na ci. diggante bi nit ñaa dee rek. comme tamit wéeru ut la kii ah nanu dee rek dem ba ut loolu loolu ay ay ay waxtaan yu yu war a gaaw la war doon. surtout insécurité donc nañ nee na président Macky Sall nee na weeru août. Mhm. dina woote conseil présidentiel bu ñu sukkandikoo ci yenn kaay bii di le soleil. Mhm. insécurité bu bare gis ngeen takk der yi. Mhm. xam nga ne bu ñu défilé 4 avril démb ñu ngi ko fi génn. ci ay jumtukaay. liñ fi génn ci ay takk der. mais nag bu ñu fàtte ne façon rey gi ñu nemmeeku nii. bu fekkee takk der yi de ñoom ñoo ci war a bay seen waar kon ku si nekk buntu kër gu nekk. da nga fay benn takk der ndax agresseurs caabi ju xam bu njëkk sax dañ doon toog ba guddi xaaja guddi ba mu lëndëm def waaye fi ne léegi léegi nii nii rek boo xefee léegi boo toogoon léegi gis kenn kuy agressé agressé ba pare jël dem maar day taali jaar si nag kenn du àtte danga naan bu ma àttee ñu gor ma nga bàyyi nit ki jël lu muy jël te dem non Sénégal na wax fa dëgg neex yàlla loolu moom dañ ko doon gis ci film yi rek source a euh, source a ne xalaas xalaas moom mi ngi euh, euh, dikk ci euh, malien bi nga xam ne dañu ko rey sa Bakel waaye it Ziguinchor benn xale bu nga xam ne dañu ko fa faat moom foofu la génne source a Dakar Times Dakar Times ba tey ci wàllum kaaraange ak insécurité bi nga xam ne moo am ci G5 réew yi ci tënku mooy réew yi nekk zone Sahel wàllum terrorisme na xam nga ne kuréelu mbootaay xeet yi seen bànqaas bi yor wàllum kaaraange gi dañuy def benn rapport ñu génn ko waaye rapport bi lu mu won ne moo di réewu G5 yooyu wàllum moyen koppar daf leen të moo tax terroristes ñu ngay wéy di dicter seen i loi doy na waa l'exclusif l'exclusif dikk ci Lat Diop sa géejawaay mu ngi dox ci kaw kii di Aliou Sall xam nga ne ñoom ñaar dañoo jamono ji dañoo nekk si defante bu mat sëkk nag fantasi yoo fasantik sikkim ana ana bu mat sëkk monsieur le maire bu géejawaay nag xaw ma nooy taxawee man xam naa fu muy taxawee sax euh, fu muy taxawee yoo xam nga fu muy taxawee man xam naa fu muy taxawee ah diggante Aliou Sall ak Lat Diop fan la fan la ak monsieur le maire bu géejawaay war a taxawee xanaa ca digg ah sa digg ba. dëgg. waaw <laughs> jàng na. <laughs> te damay rapport lay andi Lat Diop. Palla Khoulé. tey mu neex. non léegi Lat Diop nee na hmm. am nga client boo xam ne nii doo xam foo koy yekkale. nee na bi mu jëm pour jàkkaarloo Aliou Sall mii ragalu ci dara. mu koy tëkku de da ciy ba mu jeex moom sëtu Lat Diop Diop bi. tëkku ko de saa xawer soxna Mbaye Diop nee na dana ci dem ba mu jeex. Mhm. Aliou Sall dina xam ne jàkkaarloo naa mbër. te fii mu teg tànkam nii nee na bu ñëwoon nekk dellu sax lu tax mu bàyyi. màtt na te du yàgg. bu yàggee dafa dagg. kawteef kon nag Aliou Sall donte am na ay renfort moom gis na ne Aliou Sall am na ay renfort waaye keroog renfort yooyu moom dina leen affronter. Lat Diop mooy wax. surtout Lat Diop Diop nekk l'exclusif. mais ni ko yore ay armée de fi mu ne nii dans. <laughs> Géejawaay neex na. <laughs> torop non monsieur le monsieur le maire Géejawaay neex na Géejawaay taay neex na de. l'évidence bu dikk ci keneen ku bëgg nekk maire mooy Serigne Boubou. sëriñ boobu nee na dafa bëgg nekk maire bu Kaolack ah ku mu neex nekk maire nag ku mu neex ah, am waaw ku mu neex am nga ambi am nga sañ-sañ am sa ambition nekk ah, maire ah sax nga nekk politicien ah. jaru ko jaru ko sëriñ boobu nii xam nañ ne du politicien homme d'affaires mm-hmm. bëgg na nekk maire bu kaw mm-hmm. Kaolack te moom dafa mel ni waa Medina Baye dañ ci ndax moom loolu dafa leer waaw euh, Mouhamed mbay FM Sénégal mu ne <laughs> moom bu mu takkee jabar ba léegi <laughs> non du ma xarit la nag Mouhamed Mbaye bu FM Sénégal. borom il est minuit. ndeysaan <laughs> ñu ngi koy nuyu. ma wax sa lune wala ma bañ koo wax. déet ma bu fi tudd lune de mielu kenn fi ne nag. kon nga ah, bàyyi waaw bàyyi noonu yow tamit nag. ah kon baax na koor gii. gis nga ni may daan xaafu. law bi am na jaasi. les échos les échos <laughs> bu dikk si Moustapha Fall Thié PCA BSN nga coow li bari woon lool nag moom nag euh, euh, raxas naw deram de. nee na waxaalewul jëndul fekkewul fu ñuy jëndee. oto bi nga xam ne dañ koo jox. Hmm? daa toog lépp fekk si. da ko fekk si te liggéeyu ndeyam. Mhm. nee oto bi nga xam ne dañ koo jox sax. 100 millions liggéeyam moo tax ñu jox ko. Ah, nee na mu nekk 1 milliard waaye liggéeyam moo tax ñu jox ko nag moom daal Moustapha Fall ci loolu la wax ñi koy ŋàññi nag nee na gisuñu moom moom gisul lu fi ñor dañ koy màcc en tout cas loolu <laughs> coow laa ngoog nag man aw ma benn commentaire ma ciy def ko dëgg neex yàlla. fa dëgg neex yàlla. tës bi nee na tës bi nag euh, il faut ma dem xool ko parce que xoolaguma ko xam nga monsieur le maire bu Guédiawaye na muy def moom moom rek moo ko mën. waaw il faut nga bàyyi rek. après ñu dem xool en tout cas tës bi du ñàkk ñàkkum kaaraange gi dinañ ci wax kàddu Serigne Bass Abdou Khadir dinañ ci wax. moom. waaw euh, <laughs> <laughs> Sénégal comme kii Mouhamed Mbaye de film wax 24 heures chrono de wax na dëgg de wax na dëgg de comme 24 heures chrono de. <laughs> te yàlla baax na yàlla baax na. boobu film de yàlla ba ci joué yàlla ma ci joué <laughs> da nga ci joué. non man joué wu ma. Mhm. ñu si jeu bi. Mhm. boobu ba tey ñu ngi joué. kon nag fu mu nekk li ci des mooy. toog daal di xool di seetaan ba xam fu mu jëm. dàq ndaje. Mhm. seetaan ma dàq ndaje yàlla baax na kon dig daje. suba jaar yaa ngi ñëw tës si kanam. ah yaa nga fa. maa nga fa waaw bu dee yaa nga fa moom ma ñëw man ku ma toog loolu da laa bëgg. waaye am na naan nga toog kay parce que maa fay nekk. Ahmed Aïdara ak euh, Mami. waaw ah, bu loolu moom danaa ñëw. bu ñëwee nag. ak El Hadj Mansour Diop. waaw ah, waaw Mansour ak euh, Mami ak yow ak man ñu nekk ñett tey tës bi nag. ñeenti doomu kenn naar yi ñoo fay ne. jotaay xibaar man la wala yow la. jotaay xibaar bi. yow la. man maa ngi dem. <laughs> yaa pour ñu def waaye léegi yow doo euh, ban heure la jot. 48 48 doo liiral ñu benn chapeau wolof rek ma xool. dañuy xool demaguñu demaguñu. bii boo ko doon def si wolof nu muy demee. 48 boobu waaw doo ko def rek si wolof rek. ak ma wax ni muy demee grawul ak luñ naa <laughs> maa ko mere waa kon mu ngoon kanamu di kàgg xibaar yi. <laughs> Lambert euh, Sen TV mbokk yi daal leen jàmm si biir la jotaayu xibaar ñu fës kee nekk door ak nag euh, mbiru euh, Fatou Bintou Camara xale bu jigéen boobu nga xam ne moom la ñu gàntalay fanam sa Tamba jàppale na Pape Alioune Fall nga xam ne moom la ñu sa tuumaanal nii ne moom moo def mbir ya yóbbu nañu ko mandat de dépôt caabi féetee na ni ginnaaw mu war a kon rek jàkkaarloo wala sa jàkkaarloo nag procureur de la république ba pare guddeen bu njëkk sax fanaan na ko niki démb foofee sa kasop Tambacounda Ousmane Beng moom gannaaw ba mu amee la mu bind ci page Facebook am doon sàkku nag euh, ñu rek euh, euh, wàññi li mu ko jigéen ñi moom it mujj nañu ko gannaaw bu ñu ko téye di ñaari fan mujj nañu ko rek yóbbu section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane moom it mbir yi jàpp leen ne dana dem fa mbaxane doone benn. ñu des ne ba tey ci fitna googu nga xam ne nemmeeku nañu ko fii ci réew mi jigéen ñi gannaaw ba ñu ci gisee seen bopp ñoom nag nam nañu am ak toogaanu ñaxtu loolee samedi lay doon ci gaaw bi euh, sa place de la nation ndax nee nañu loolee ci boppam dafa war a dakk ñu ànd seex Amadou Boy Germaine Dior ñoom nag dañu mer ba futtu bëgg nañ ñu dégg leen ci jëfin ju ñaaw ji ñuy teg ci jigéen ñi. Euh, attirer attention autorités yi ci mettital yu jigéen ñi du dund moo xam mettital ci wàllu awra la moo xam ndax mettital ci wàllu koom. wala méttital ci wàllu xel wala méttital ci wàllu wàllu yaram mu nekk li nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy dund seeni biir kër. collectif dafa doy bi xeex méttital bi ñuy teg ci jigéen ñi ak ndaw yi ak jigéen national ligue démocratique ñoom nag ñu ngi ñaax nguur gi. ne violence fu mu am. développement mun fa am te violence fu mu am day nasaxal societé donc tey jot na ñu jëlee fi yooyu violence parce que waaw dafa doy. sensibiliser population yi sensibiliser reykat yi pour ndax ñu jubee population yi dinañ gis. li nit ñi def dinañ gis di ñëw dinañ ko dégg. di organiser ay doxu ñaxtu ngir xeex métti yi ñuy teg jigéen ñi nag bariwul ñu koy gis fii Sénégal waaye faat bakkanu aadama yi ñuy def te jëmale ko ci jigéen ñi tam fi amoon tax na ba organisation yooyu nag bëggootuñu toog ne yaas. toujours ñi ngi wax waaye bu ñu waxee mu xaw a dal bu ñu xawee noppi tuuti yëf yi jógaat léegi nag dañu bëgg bu jeex tàkk nag ñu éradiquer muy fléau boo xam ne bi dootul amati Sénégal ñu bàyyi rey yi ndax rey ëpp na fan yi moo dafa takkar naase toogaay ñaxtu bi ñu organiser samedi fële te place de la nation nag dina boot plateforme yi xeex droit ak yelleefu jigéen ñi ba tey lu soxal nag Fatou Bakken googee ñu ne meeku ci réew mi rawatina soxna si di euh, bint euh, Camara mu loole nag sabab na waa CORED mu di kuréel bu nga xam ne day dox si lu euh, jàppandil liggéey yu tasum xibaar ñoom nag la ñu lu moo di yenn ci ëttu tasum xibaar nañu rek maanaam doxale ci mbirum Fatou Bakken googee ndax dañoo gis ne nañu doxee boobule xibaar des na aw ci yoon ngalla waaye ñu ngay sàkku si ñoom ñu gën a bàyyi xel si seenub liggéey wàllum terrorisme lañu yàddu jëmale fii ci réewum Sénégal ax yamu sa euh, jël mu mel ni kon nag ni ki rek démb dañu doon def ni ab misaal mu mel ni kon euh, foofee sanda dañu def ne kon benn ab camion ab daf euh, ay terroriste dañu ko rek daal di jël otage ba noppi war ko claté loolee bu fekkoon am na suñu der i nan la ñu war doxalee ñu ngi ko amaloon foofee sanda route nationale numéro 2 ba nettali bi Ababacar ñaa lay doon exercice de similation moom la larme bi amaloon tey nag foofu ci cité ngaleel mu nekk ab attaque terroriste boo xam ne ay groupe Samba Boy yoo xam ne dañu nëbboon seen kanam ñoom nag ñoo jàpp benn camion boo xam ne dafa yaboon ay bidon essence fas yéene ko taal nag ci diggu mbedd mi tax na nag ñii di force de défense ak sécurité yi nekk ci biir région bi gannaaw ba leen ko yëgalee ñoom nag teew na ñu xeex ak ñoom fexe nag ba mujj nu amal jëye jooju. gannaaw intervention bu am solo boobu nga xam ni nag ñoom l'armée bi def nañ ko kii di chef d'état-major comité régional bi nga xam ni mooy yëngatu nag lépp lu jëm ci mbirum terrorisme ak kii di gouverneur bu Saint-Louis ñoom rafet nañu liggéey bu am solo bi nga xam ni nag nemmeeku nañ ko ci exercice de similation boobu. donc foofu la ñu terminé en tout cas pour dire que ni kontaan trop ci exercice bii ñu def tey te boo leen ko fàtte tamit exercice bu ñu tàmm def la fii ci Ndar gi ah, que exercice boobu tax ñu mën a tout tout di say di saytu suñuy suñuy suñuy capacité euh, pour euh, vraiment lutter contre le terrorisme. parce que lii ku ko gis ak générosité bi mu àndal xam na ne daal ñoom am nañ leen gërëm am na leen sant daañu jëlaat également notre initiative d'autres existent yu mel nii ak d'autres privés. ak d'autres formes de menaces yi nga xamante ne xëy na du nekk ci format bi pour ñu gën a mën a entraîner wu di gën mat mën a nat. mu nekk ay exercice de simulation yoo xam ni l'armée bi amal na ko tey ci ndar nag jóge nag ci lëkkaloo ci diggante gouvernement bu Sénégal ak forces armées yi loolu yëpp ngir gën a mën a yokk kaaraange gi waaye tamit xeex ak terrorisme bi nga xam ni nag dafa bugg dugg sunu réew. ñu àddu jëmale ci wàllum njàng mi si junni ak euh, juróom-ñett téeméer ak juróom fukki candidat yi nga xam ne ñoom ñoo jàll ci jongante élève maître yi jàppale ne ko ñeenti téeméer ya EFI bu Tëngéej la ñu leen yóbbu mu di for euh, centre régional bu formation professionnelle bu éducation bu Dakar foofee ca Tëngéej la féete ñoom nag ni ki démb euh, la ñu jot a dem seen bëccëg bu njëkk foofee mu di seen amphi de rentrée ñu doon sax àddu jëmale ci wàllum kaaraange gi ak nag jàngalekat yi yan jéego la ñu sa war a def ñu ànd seex Cheikh Mati Diagne Seck Habib Dia xew-xew yu métti yi jaar ci suñu réew nekk lu des ci xel yi ca ba ñuy amal amphi de rentrée bu jàngalekat ya ñuy tàggate ci ren ji ci CRFPE bu ndakaaru IA bu tëngeej di fàttali solos place jàngalekat bi. li ko waral nag war nañ moo posé wu question li tax lu ko andi est-ce que famille yi ñoo defatul liggéey bi ñu war a def ou bien ce que lañ doon xaar ci njàng mi ak njàngale mi est-ce que mu ngi koy def ba teyam de loolu nag question yooyu jàngalekat bu nekk war na ko mën a posé boppam. waxtaan te gëstu ba xool lan moo war a nekk suñu taxawaay en tant que jàngalekat pour ci situation bi nga xam ne ñu ngi koy vivre. gannaaw joxe xam-xam jàngalekat bi war a nekk royuwaay ci ndongo bi. jàngalekat référence la li ngay jàngale da nga koy maîtriser d'abord ensuite jàngalekat non seulement di nga maîtriser li ngay jàngale mais xale yi ngay jàngal war nga leen xam ku nekk nga xam li mu mën ak li mu mënewul nan lañ ko war a tàggate ba li ñuy xaar ci moom mu joxe ko. maanaam xale bu ne dafa am nuñ